et c'est un ensemble vous voyez benn lam rek on di que du yëngu donc donc euh, on a fait def nañu liggéey bi waaye nag des na des na d'après man des na mënoon na gën a neex waaye nag dama ci sant yàlla parce que xale yi am nañu jom parce que ñu bari ci ñoom dañu feebar mais ils ont tenu le coup dañu feebar waaye góorgóorlu nañu gudd na tuuti dépassé nañu waxtu bi nga xam ne fa lañ ko bëggoon yemale waaye tamit mënu ci ñàkk parce que tamit am na yoo xam ne dañ ko ci dugal tardivement donc xaw na doy waar journée mondiale de la danse bi nag dañ ci sant yàlla ci gërëm ñëpp bi ñu réservé loo xam ne dina tax journée boobu ñu wane lan mooy fecc waaw parce que tam fecc c'est c'est un métier comme tous les métiers waaw tey le le ballet national moom mooy l'équipe nationale de danse au Sénégal comme l'équipe de football waaw kon tey bu fekkente ne woote nañ suñu kër def un spectacle dans l'après-midi le public ñëw vraiment ànd ak un public boo xam ne c'est un public chaleur wax dëgg yàlla du ñu def lu dul sant yàlla di wax ne daal wax dëgg yàlla mu ngi noonu et on essaie de faire mieux gën a defaraat muy gën a baax di gën a set di gën a defar parce que un travail une œuvre n'est jamais parfaite da ngay defar di defar di defar di defaraat on a besoin de vos critiques soxla nañu ko ci nekk sa xalaat say suggestions say critiques yëpp ndax loolu mooy permettre ñun tam ñuy gën di defaraat di gën di euh, raxas ba mu set macha allah ñun dañuy liggéey pour le public dañuy liggéey pour le monde ñun liggéey ñu rek pour toog fii di répéter di teg bu ñu sañoon tout le temps dañuy génne li ñuy liggéey nit ñi di ko gis parce que nous sommes payés pour ça. su ñu nee compagne de terre nationale kooku c'est pour toute la nation te nation bi li muy xaar ci ñun mooy vraiment ñu wane suñu liggéey ñu wane lan moo tax ñu ñuy fay ñu wane lan mooy suñu gëddaax suñu taxawaay donc dañuy dañuy ñaan yàlla di gën a jëm kanam di gën a liggéey man nag maa ngi sante yàlla fa tabarakallah ndax yàlla may na ma macha allah ma dugg fi 82 nekk artiste danseuse. dema dema dema dem ba tey ma nekk fi directrice bale nationale bi ba macha allah cette année ma war a dem retraite à la allah donc damay sant yàlla mais la relève est la et ça va continuer man bu ma demee tam ci kàttanu yàlla xale yaa ngi fi liggéey bi day gën a baax sax man dama naan def ma dara lii sama œuvre damaa ko bind maa bind scénario bi maa def chorégraphie Jean Pierre jàppale ma xale yëpp macha allah direction bi yëpp waaye nag liggéey bi du yem fii. su ma fi jugee leneen ak leneen ak leneen mën na amaat fa tabarakallah kon ñun suñu rôle lii rek la di liggéey rek di leen jox yéen tamit dee leen ñëw di ñu seet si parce que yéen ay may yéen a ñu yokk jom yéen a ñu yokk courage parce que ni ngeen di ñëw di ñu gis di jël di génn ci biti nit ñi di ñu dégg di ñu gis day tax ñu gën a fas jom kon nag le travail va continuer san ne s'arrêtera pas donc mi noonu waaw et lii tamit nous comptons vraiment persévérer faire encore mieux pour ce qui parce que programme la boo xam ne dafa diis nag c'est un très lourd euh, programme et nous qui le faisons qui le dansons on sait que c'est lourd programme bu diis la waaye nag sant yàlla alhamdulilah